internautes bonjour dal leen ak jàmm ci Hann TV pour seen deuxième numéro Zoom Plus l'émission qui s'intéresse aux zones d'ombre et personnes méconnues du grand public tey nag nous allons à la rencontre d'un bonhomme de la circulation ki nga xamante ne ñaar fukki at ba léegi moo nga fa di def liggéey bu mucc ayib foofu ci grande artère yi rawatina foofu ci entrée bu Maris bés bu nek yaa ko fay sét mo xam muy tang wala muy sedd mom nak dara ñoro ko lu di régler situation bi nga xamantene da fay faral di tagga témbe diggante Maris japp fi di Yaraax Amis Internet votre chaîne ANTV ouvre son focal pour un zoom sur le vaillant exemplaire citoyen Amadou Sy. tout d'abord mangi le leen di gërëm di leen sant ci ñëw bi ngeen ñëw encore pour def reportage boo xam ne maa ci yaakaar aussi sénégalais yi suñ ko dégloo dina amal njëriñ réew dina amal njëriñ jëpp daal. Amadou Sy benn sénégalais la bu nekk fii ci réew mi koo xam ne nii dafa am benn xalaat bu mu gëm bon doon ko def ba yàlla def ma dem ba tey sénégalais dem ba xamé ma ba ràññee ma ci bon l'an 2000 parce que man bon mun na wax ne marsa ambulant la doon def l'an 2000 yalla def ba am ben jour fekk ben vendredi ma ngi togon di noppaleku ben camion paan fofu quoi bi camion bi paanee fofu ken nek foon e eh, mané ne ah xaaral ma ñeem leena a dimbali bima taxawé fofu yalla def ma nek ci di dimbali auto di len dimbali ba yalla def affaire bi sotti da ma def presque def n'a fa ay 2 heures de temps bi suis defee à bu sotti nag ma ma dem ñibbi toog mu mel ni dama inspiration mais pourquoi pas lii xalaat la lu parce que citoyen bu nekk war nga seet li nga mën a def bul xalaat yow d'abord liñ lay defal mais yëngal yow li nga mën a def ma opté lii man ko def ma commencé ci laa commencé nag def temps en temps ma comme man aussi borom père de famille la damay dem def samay jëm wut ay bagage dem jaay suma ko jaayee suma télé paré ma ñëw nek fofu diko def ñi la ko def pendant pendant trois ans ma diko def def na yarax trois ans pompier def n'a fa trois ans kappa def n'a fa trois ans ça fait 9 ans avant may ñëw Anne Maris Anne marie nak suis là, nek batay bon bi def aussi def na fi ma egg tay xalaatuma ko won parce que tay bobu temps metti parce que comme sénégalais ñom xamuñu won li civil war na def dara circulation bon ma ne lii daal dinaa ko def pour won sénégalais yi ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñun ñëpp réew mi lu caagi ne man gëm naa réew gëm naa réew bëgg naa sama réew mais bëgg naa sama réew da ngay def dara pour sa réew li nga xam li nga mën lu xeeb lu tuuti li ngay def nga def ko moo gën li si des yàlla moom yàgg-yàgg lu waaye def ci lu baax yàlla dina la fay donc man loolu laa gëm tout début est difficile nous dit l'adage c'est le cas pour Amadou Sy ndax ba muy tàmbale métti na lool te lu nekk dégg na ko waaye taxul mu bàyyi benn yoon épaulé par sa femme Amadou Sy s'est senti pousser des ailes. amoon na ay jafe parce que nit ñi xamuñu ma woon imaginel benn waay bu taxaw fii rek di régler circulation xam nga yow nga yàkkamti mu téye la nga nga ko loxo. parce que am na benn sam benn jour la woon bon maa ngi joxe circulation bi ma femme bi bi ma ko téyee ba mu taxaw ma woon ko ginnaaw commencé joxe voie bi. mu def ma signe comme quoi dafa bëgg dem ma def ko signe nako taxawal xaar bima ko wax wanee ginnaaw ma dëgg gëdd auto bi oto bi daal di may bon oto bi bi xamé né sax yalla moma sutural parce que bima xamé né ne aussi su ko bàyyi ci sama kaw lay jaar dama tëdd ci capot pour oto bi bañ ma écraser ma tëddee bi freiné brusquement nak ci lam auto oto bi sanni ci ma sanni bi sanni après nak sama loxo bi dam presque defna 2 ans yo xamné ma ngi don faju imaginer borom kër nga yor loxo te yow ligéyé won da nga don fottaatu kon calvaire na ben calvaire bu metti ci 2 ans yoy mais sama famille soutenir sama kompor comprendre ma vraiment di ma donc loolu bokku na ci aussi li nga xam gën na mo motiver sama jabar jàppale na ma franchement aussi parce que elle n'a jamais dit que man li xawma li lan la war a dafa ne ma rek grawul comme que yow dal décidé nga ding ko def man dina la jàppale kon suñu eggee fi tay aussi amna ci moitié bo xam ne mom moko mom quoi waaw mais vraiment aussi maa ko ci gërëm bu baax donc mom tamit lepp lo xam souffriron nako ci choono aussi mom daj nako kon tay suma démé ba tamit ba egg fi mom tamit c'est grâce à elle mom tamit japp na ci mais ñu bari xamu ñu won parce que est-ce que aussi nit dina tok en tant que père de famille nga baye sa njabot baye sa lepp di def nek ci tali bi parce que sacrifice bob aussi man xamna ni yalla manam yalla dimbal yalla la mais nak yombul parce que tamit nga wara a fay location man fuma dekk dëkk fay damay louer ñaata temps la am problème location yo xamni ni presque dama dan wax demna ba ñu génne ma mais buñ ma génnee tamit téréwul musuma décourager musuma xadi deng nga Ah, sama mbokk dem nañu ba sax dañ may woo nama ma li ngay def waroo ko def parce que lii yow doo policier gendarme donc mais vision bima am amuñu ko won xalaat bima am amuñu ko won tey su ma yàlla defee tey ma muñ ba egsi fi aussi parce que mooy li ma lay wax rek gëm nga def def ko ngir yàlla nga respecté li ngay def nga bëgg li ngay def parce que lii maa bëggal sama bopp su ma ko bëggul woon du ma egsi fi parce que tamit 15 quinze ans ngay galéeru nga nekk père de famille yombul donc aussi man tay maa ngi maa ngi sant yàlla bu baax ci li maa ngi dem su ma demee tay ba autorité wa police wa gendarmerie ma nek di liggéey ak ñom parce que aussi je profite de l'occasion pour aussi ma gërëm len parce que ñom tay ñom ñomay may couvrir parce que problème ñoom bëgguñu kenn laal ma bëgguñu ko am ak kenn kenn problème parce que ñom tamit dañu dem ba ñu bolé ma seen biir comprendre la ça veut dire lool tamit communication bu ma nekk ak ñom tay vraiment communication bobu réussir na tay parce que non tay ñu ma bàyyi man maa ngi nekk ak seen biir di liggéey comme agent euh, de la circulation voilà donc c'est aussi vraiment ci l'engagement citoyen récompensé le célèbre agent de la circulation sur la route de Anne a été intégré dans la fonction publique par l'État matérialisé par le ministère de la fonction publique et la toute récompense d'un engagement bénévole et volontaire que ce père de famille ne cesse de faire montre depuis 20 ans. vraiment c'est ce bu rëy la vraiment sax mën naa un ne instant dama temps pour me a sama parce que tamit yombul temps.

Euh, je profite de l'occasion aussi pour wax tey président maa ngi koy une bind lettre de remerciement déposé naa ko aussi tey nit ki bu la defalee lu baax aussi nga wax ko wàññiwul dara parce que kum meuna don tay doon tey tamit yaakaar nit bu la defalee lu baax aussi c'est normal nga ne ko jeuf ci li nga def kon aussi vraiment c'est l'occasion maa fi passer ci seen chaîne bi di wax ni mang koy gërëm mang koy et mangi espérer un jour aussi d'ina am rencontre ak mom voilà mais man vraiment aussi li may def man amna ci fierté parce que tay sénégalais ñoomu bëgg seen bop

à part ça que vraiment maa ngi gërëm sénégalais yi maa ngi leen di nuyu di leen wax ne aussi Sénégal ñun ñoo ko bokk nañu def ndànk suñu defee ndànk vraiment ku nekk di nga dem mais njëkkante bi saagante bi vraiment chaque jour nga gis mauvais comportement ci tali bi loolu aussi war nañ ko arrêté loolu maa ngi leen di gërëm di leen sant quoi. voilà mbokk internet Hann TV li ni loon tey ci seen émission Zoom Plus. tey nag ñu leen doon xamale ak kii di Amadou